naka noonu di ko ñaanal jëwriñ kër Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Abul Baraka ak mboolem jàppul Cheikh Mamadou Fadal gépp ak mboolem jullit yëpp ak mboolem taalib yëpp di leeral ci kasuraay bi xam ne bari doon nañ ko laaj ba bëgg koo def ab audio nii rek mu gën jàpp ni ci leeral ko ñépp léegi ci gannaaw toog son àndoon na ak Cheikh Abul Baraka dem ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ak Cheikh Serigne Abibou Cheikh Mamadou Fadal. ak alxaaji Falilu Jóob ñu demee ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko sëriñ aboo ne ko ñun de dañoo ñëwoon doon fàttali bisub Cheikh Mamadou Fadal boobu muy màggalu Kazu Rajab te ñoom fas ne yéene suñu lépp ci ndigal lañ koy ci ndigal lañuy wéy ci ndigal lañ koy tënk ndax fas yéene dara fas yéene doon dara lu dul ko fi nekkal sëriñ bi ñu jox suñu lépp te bàyyi ko lépp sëriñ Muntaxa ne ko jox naa la ndigal soo demee nañ ko defe woon daaw rek nañ ko defe noonu ndax Kazu daaw moo ubbi woon yëf yi kon nag yëf yi mi ngi wéy ba léegi joxe naa la ndigal na ma ko joxe woon daaw nañ ko wéy la noonu kon ñëpp xam na nañ màggaloon Kazu Rajab daaw noonu lañ koy màggal ren ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb Seexul Xadiim barke Alaaji Fallu mii borom bis bi ñu yàgg koo fekk yàgg koo teewe